non cent pour cent mille parce que tey jii dañu remarqué ni Sénégal doo fi dem be mukk benn restaurant boo xamante ne li ñuy jaay yëpp ay hamburger lañ xam pizza xama jamais ñuy consommer li ñu moom donc tey il est temps ñuy consommer li ñu moom donc grain de mil dafa ñëw pour imposer sénégalais yi mil mil bi nga xamante ne mooy suñu cosaanu maam ñun moom la ñu xam moo tax tey jii ñu indi grain de mil tout ce qui est à base de mil muy laax caakri fonde ngalax beñu dugub et cetera dañ koy jaay fii nii ci grain de mil mais woo nag sama mbokku sénégalais yi ñëpp ñëw accompagner ma ci projet bii nii incha allah incha allah dañ ko yóbbu fu sori. juste li may wax léegi nii mooy que ni euh, sénégalais du consommer mukk lu moom tey jii am nañ ci exemple ci Covid 19 bi tey jii euh, remarqué nañu que ni ba Covid bi duggee Sénégal dañoo amoon problème mu consommation. amoon problème mu euh, lekk parce que lépp pratiquement ñun li ñuy consommer yëpp du ci bëri extérieur lay jóge di ñëw fii nii donc tey bu ñu doon consommer lu ñu moom je pense que ni soxlawuñu tey jii ay Covid 19 ñëw tere ñu lekk tere ñu naan parce que li ñu moom la ñuy consommer donc tey jii exemple le grain mille mil ah état bi xool projet yu mel nii ñëw jàpp si. parce que dinañu permettre sénégalais yi xool léegi xam seen identité ne lii la ñu moom ku nekk dugal ci sa loxoom mu jëmale ñu ci kanam. projet bi nag euh, ci début la ñu nekk donc du ma joxe chiffre gis ngeen tey jii fii ni nu mu mel du ma joxe chiffre mais dépense la quoi mais suñu vision weesu na lii donc ñu ngi ñaan yàlla egg jëmale ko point A ba point Z incha allah. Euh, monsieur le maire de Dieuppeul-Derklé dina ñëw léegi nii. peut-être moom bu ñëwee ngeen laaj ko question boobu noonu mais amaguñu benn autorité bu nga xamante ne euh, ñëw na fi lépp su su fonds propre lañ ko defee ko donc li ma leen di lancer daal mooy que ni euh, il est temps ñun les jeunes ñoo war a nekk ci kanam gëm suñu bopp di créer ay affaires yu nga xamante ne c'est innovatrice ñuy ñuy xool nan lañ koy jëmale kanam et puis entrepreneuriat moo dox léegi si tu veux faire de l'argent au Sénégal il faut nga yëngu ci wàllu entrepreneuriat. Le Mille c'est une équipe tey jii man kese mënu ma def dara mais c'est une équipe tey ñi nekk sama ginnaaw aussi xam nañ fi ma jëm donc ñoom ñoo si accompagner ci wàllu qualité ci wàllu hygiène ci wàllu lépp li nga xamante ne rek suñu dugub la pare bëgg nañ ko defar ba nga xamante ne nii ku ko ñëw nga nga gis suñuy produit di nga xam ne lii dañ ko liggéey bu baax a baax a baax. ba duñ ci am benn gàllankoor. waa actuellement niveau bu ñu toll nii je pense que mun nañ satisfaire client bi peut-être que bu ñu demee nag ba dépasser les frontières peut-être bu boobaa nag ñu xool yan matuwaay la ñuy jël pour euh, mën a yegg fi ñu bëgg a yegg. parce que grain de mil tey jii euh, ñun suñu mbébét weesu na fii lii benn mun naa ne benn pose pierre la rek ci début li ñu commencé waaye bëgg nañ ko gis partout à Dakar. ba nga xamante ne nii soxlawul ngay dëkk bërëb bu sori war a ñëw euh, Derklé Liberté 5 pour mën ko am donc loolu moom forcément ñu ngi koy liggéey te incha allah dañ ci yegg.